ausubillah bismillah alhamdulillah wa salawaatuhu wa salaamu ala wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummati wajal kalaami rasida wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi siyaare kilifa yëpp tey siyaare sama bokki taalibe yi tey ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba mu yéenee liggéeyal sëriñ bi yëpp mu àggale ko te ñu ànd ko di nuyu itam kilifa yi nga xam ne ñoo jiite kuréel gi di Touba Ca Kanam ñu ca tuddee alaaji Serigne Tàkko ak Cheikh Abibullahi Mbacké Serigne Abdou Lahad Serigne Abibu le président Serigne Abdou Fatah Gueye ak ci soxna yi bu tuddee seen jiit dana mën a yóbbaale ñëpp muy soxna Bintu Mbacké mu Serigne Abibu di siyaare bokki taalibe yëpp yi nekk ci réew mi ak yi nekk ci bitim réew tey jii nag ñu ñëwoon ngir defal leen rapport d'activité annuel de la commission sociale et solidarité maanaam Touba Ca Kanam dafa baaxoo at bu jot boo dem commission yi mu amoon ñu ñëw ngir gaaral bokk yi nga xam ne ñoom ci doon dugal seeni jëf li nga xam ne moom lañ jot a def ci at mi ak li nga xam ne moom lañ jot a am laataa loolu nag li ñuy njëkk a def mooy jéem na a nag naka la commission sociale tëdde commission sociale nag ci wolof rek mooy dimbalante ak jàppalante te yàlla rek tax ñu mën koo wax ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi wala sax al infaq fi sabilillah ci ñi nga xam ne nii xëy na danañ mën a dégg la wax waxin woowu mu doon lu am solo loo xam ne nii li ci suñu borom ñaaxee ci biir alquran kenn xamul nu mu toll yonente bi sallallahu alayhi wasallam tamit fàttalee na ko ay yoon yoon sëriñ Touba itam fàttalee na ko rawatina ci téeram bii nga xam ne moom lañuy wax Masaalikul Jinaan ba beral ko ab bunt boo xam ne nii lam ci wax ci njëlbeen gi rek doy na sëkk amat tasadduqu mahal infaaxi fa jamaal xayraati bi tifaaxi sarxe te yàlla tax ak dundale sa alal ci yoonu yàlla mbooleem yiw yi nga xam ne nii nit dana ko sàkku fii ci àdduna ak ci àllaaxira yëpp mu ngi ci ñaar yooyu commission bi nag ni nga xam ne noonu lañ ko tëgge maanaam niñ ko structuré mooy dañoo wut koo xam ne ni moom lañ jiital ñu koy wax président muy man mi nga xam ne maa nekk ci kàddu gi te ñu mbir mi wut kun tuxtal ci moom ñu koy woowee vice président wut koo xam ne tamit mooy secrétaire boo xam ne mooy secrétaire commission bi nga xam lépp lu fiy rot ñu war koo bind war koo yaxal moom moo koy def wut tamit am modérateur koo xam ne ni bu ñuy def réunion moom mooy joxe kàddu yi te moo koy limité waaye wut koo xam ne ni moom lañ dénk ngir mu yaatal liggéey bi muy kon chargé wàllu communication bi wut tamit koo xam ne mooy secrétaire financier bi nga xam ne bépp koppar boo xam ne day dugg si ci moom lay jaar bépp koppar boo xam ne mooy génn tamit moom mooy def pièce de caisse bi nga xam ne moo ko war a génne kon lii mooy membre de bureau yi teewut itam nag commission sociale moom membre yi dañ ko illimité la maanaam amul lim bu yem waaye ci biir illimité boobu dañ cee tànnaat ay nit ñoo xam ne nii bureau exécutif bu Touba ci kanam rawatina ci ñaari njiir yi muy adjoint eh, responsable moral bi ak ki nga xam ni mooy président Touba ci kanam ak le secrétaire général bu ci kanam ak administrateur bi ak lenn ci membre bi exécutif bi ñoom lañ jël yokkaat ci yeneen nit ñoo xam ne ni ñeneen ñi ngi ci biir réew bi ñeneen ñi ci bitib réew ngir ñu mën a ànd du saytu liggéey bi ngir mu gën a ñoom ngir bépp cas boo xam ne ñëw na dañ koy dugal foofa la ëpp ca bokk ya fa nekk lañ wax loolu la ñuy wëyal li nga xam ne nii moom la ñuy def nag lépp dañ koo teg ci eh, ci benn base de données boo xam ne dañ ko établir mboolem cas yi nga xam ne dañ koo am foofa lañ ko enregistré xam nga xam ne danañ xam nit ki xam fam dëkk xam mbir mu nekk fam toll ci moom activité yi nga xam ne moom la ñuy def nag bokk na ca mooy taxawu ñi nga xam ne nii dañoo am jafe ci wàllu wér yaram commission sociale bokk na ci li muy taxawu te mënaluñ ko seen bopp bokk na ci li nga xam ne moom lay taxaw itam mooy ñi nga xam ne dañoo wér waaye nag dañoo am jafe-jafe ci seen wàllu dundin ñàkkub dund wala yu demee noonu ci biir jëf yi muy jëf tamit am na loo xam ne da koy baaxoo yóbbu ci daaree kaamil ji nga xam ne moo nekk jumaa ji ci weer wu nekk dippi ba nga xamee ne kuréel gi taxaw na ba léegi bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy def itam mooy danañ taxawal ay bis yoo xam ne nii lim bi nga xam ne dañ ko daan jël ci weer wu nekk di leen jàppale su boobaa dañ koy gën a ful ci jëm ci ci koor gi ñu koy wax social ramadan ak ci korité gi ñu koy wax social korité ak ci tabaski gi ñu koy wax social tabaski ba ci màggal gi sax ñu koy wax social màggal loolu mooy yi nga xam ne nii moom la commission sociale di yëngu ci at mi mu am ci loo xam ne nii nag jamono ji nekk ñoo ngi ci eh, am ci loo xam ne nii dañ ko wutal ay bis rapport bii nga xam ne moom lay wax nii nag mooy li nga xam ne nii moom lañu def ci at mi yëpp waaye ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir Touba Ca Kanam ñu ci bëri réerewul ne commission sociale moom chaque mois wala weer wu dee dana def ab rapport boo xam ne nii képp koo xam ne dugal nga ci sa dërëm dana def ab tableau boo xam ne dana bind sa tur bind la ci dugal ak fa nga ko jaarale bu weer wi jeexee itam danañ def mbooleem li fi mu jotoon dugg ñaata la ak fañ ko def ci ñi ñaata nit lañ ci faj ñaata nit lañ ci dimbali ñaata nit ñaata lañ ci yóbbu ci daari mi ji ak yu demee noonu kon ñu ñëw ci njëlbeenu at mi bi muy tàmbali comme ni ñu ko bari ñu bari niñ ko xamee dafa tolloo woon ak suñu borom wàcce am natt boo xam ne nii muy ñu di ko wax mbas mi nga xam ne nii mooy Covid bi ci jamono boobu nag ñi nga xam ne ñoo yor wàllu kër docteur dañoo xamle woon ne ab jaxasoo moo tax visite de terrain yi nga xam ne moom lañ daan def ci ñi nga xam ne dañoo wéradi ngir di leen taxawu ci am paj dañ koo dakkalinu woon kon nga xam ne juróom benn weer yu njëkk yëpp amu ci kenn koo xam ne nii dañ ko doon dem di ko xooli ngir dafa wàllu tawat yooyu lu may nag koo xam ne dafa wéradi waaye wàllu ordonnance day yittewoo wala sax xamoon nañ tawatam ba xam la koy saafara ñu yónnee ko dara ngir mu mën caa jàpp ci tal njëlbeenu weer wi nag liñ ci jot def ci xaalis mi ngi toll ci deux millions trois cent cinquante trois mille neuf cent cinquante deux million trois cent cinquante trois mille neuf cent cinquante loolu lañu jàppale woon ñi nga xam ne ñoom fi doon sàkku ay ndimbal bi nga xamee ne Covid bi tàmbali na tamit dañ ko defoon ñaari xaaj muy am na ñoo xam ne nii eh, jamono boobu dañoo tëj frontières yi tëj régions yi ba kenn mënut a déplacé wu ba nit ñi am na ñoo xam ne amoon nañ jafe-jafe ci wàllu dundin waaye ci biir loolu tamit am na ñoo xam ne nii tawat ji dañ dina tudd di tudd di ko tudd tudd seen i kër te jamono jooju dañoo waxoon ne képp koo xam ne loolu dal la dañ lay ber. maanaam def la li ñuy wax mettre la en quarantaine nga xam ne doo sañ a génn di wut loo yëngu ci kaw loolu nag commission sociale Touba ci kanam jàppale woon na ci ay nit yoo xam ne nii toll na ci cent cinquante huit personnes téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom-ñett lim bi ñu leen jàppale woon ci xaalis nag ci lu jëm ci ceeb ak xaalis mi ngi toll ci cinq millions six cent dix mille cinq cent cinq millions six cent dix bi nga xamee ne tamit kër yooyu ñu quarantaine am na Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér dafa amoon taxawaay bu am solo boo xam ne def na ko ci biir réew mépp nga xam ne xaajalewu ci ku doon jullit ak ku doonul jullit am murit ak ku doonul murit yëkkati woon lu tolloog ñaari téeméeri million joxe ko dimbalee ko ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi waaye yëkkati ab dund tamit séddale ko ci biir dëkk bi séddale séddale ay taraanga tey ba taraanga yi lawoon na fu bëree bëri ci dëkk bi ak ci réew mi mu woowoon nag kilifa Touba Ca Kanam amoon yée yëkkati ab lim ci ay koppar jox leen ko ngir ñu defal ko liggéey boobu ngir kër yi nga xam ne dañ leen a ber te amuñu sañ-sañu génn jaxasoog mbooloo mi ñu am lu ñuy jëfandikoo ci seeni biir kër ci loolu nag kilifa yi gis ne ñoom ak alal jin yor yëpp sëriñ bi moo ko moom ñu waxaat ne ñu sàkku ci sëriñ bi ngir liggéey boobu mu sant leen ko nga xam ne du jaar sëriñ bi di génne dara sëriñ bi nag dénk ko euh, kilifa yi kilifa yi tamit jëloon ab comité boo xam ne moom lañ ko dénk muy commission sociale waaye ñu jiital ci la secrétaire général bu Touba ci kanam mu def ci liggéey bu am solo kër yi ni ñu ko doon defee mooy kër gu nekk dañuy seet dafa am benn commission bu ñu tijji woon boo xam ne nii ñi nga xam ne ñoo yor wàllum faj ci biir raison bi rawatina ci biir dëkk bi mooy docteur Soxna Ndeye Ndeye màggat Diop moo ñu boole woon ak ñaari fajkat ñoo xam ne nii jamono ju nekk ñoo ñuy yónnee bis bi ñi nga xam ne moo fi am ay cas positif bu ñu ko yónnee nag dañuy nemmeeku kër googu ba xam ñaata nit ñoo fa dëkk. ci la ñuy xamee nag ñaata la ñuy war a jox dépasse ci ci fukki fan ak jur ñeent yi nga xam ne moom lañu war a toog muy quatorze jours yi waaye nag tubaa ci kanam dolliwaat ci yeneen ñaari fan yoo xam ne nii ginnaaw bu seen quarantaine matee ñaari fan yooyu dañ koy noppalu muy seize jours loolu nag ay kit lañ ko defoon den séddale lu mel ne ceeb diwlin ak sucre ak euh, eau de sevel ak madar ak yu ni mel boole kook enveloppe boo xam ne nag moo koy gunge loolu lañ ca defoon lépp mu ngi toll ci douze million six cent soixante-sept mille six cent cinquante douze million six cent soixante sept mille six cent cinquante kon bu ñu xoolee li nga xam ne ni moom ñoo ci jot jariñu kër yi nga xam ne jot na leen quarantaine nga xam ne Touba ca kanam dugal na fa loxoom commission sociale ñu ngi toll ci cent trent deux famille téeméeri jaboot ak fanweer ak ñaar loolu nag ñi nga xam ne nii ñoo ci jot a jariñu ci ay nit ndax léegi li ma waxoon ay famille la waaye li ñu ci jot a jariñu ay nit ñu ngi toll ci mille quatre cent soixante cinq personnes. junni nit ak ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom boo ko booleeg cent cinquante huit yi nga xam ne nii moom laa waxoon léegi nga xam ne ñoom ak wér dalu leen kon day mel ne ci biir Covid bi ci juróom benn weer yu njëkk yi taxawu nañ lu tollook mille six cent vingt trois personnes junni nit ak juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci événement yi nga xam ne nii commission sociale baaxoon na ko taxawu ci at mi ñu njëkkee li nga xam ne mooy korite gi korite gi nag bu daan dënmal si dañ daan xool ne demande bi day gën a yokk ci askan wi moo tax ñu daan wut bis boo xam ne nii nit ñi nga xam ne ñoo lañ daan jàppale dañuy yokk lim ba ci jiital ci benn recensement boo xam ne nii dañ koy def seet quartier yi nga xam ne ñoo gën a sori ci dëkk bi ñu koy woowee ay sancaan ñu jël fa ay nit waaye jëlaale ay nit ci biir dëkk bi buñ ko boolee nag ñoom lañ daan jox ndimbal yi moom ngeen di gis ci image yi muy loolu loolu ñu daan organiser er-, ci mbaarum Daaru Xuddoos ren jii nag di 2020 li nga xam ne moom lañ ci jot a am ci xaalis bu teew nga xam ne espèce la mu ngi tolloon ci 31 millions 358 mille 969 31 millions 358 mille 969 li nga xam ne moom lañ ci amoon ci ab dund nga xam ne li lu demee ne ceeb wala suukar wala yu demee noonu nga xam ne jamono ju nekk Cheikh mun Mountakha moo ciy jiital loxoom loolu buñ ko xaymaa ci xaalis mi ngi tolloon ci 5 millions 417 mille 500 cinq millions quatre cent dix sept mille cinq cent bu nu xoolee nature bi ak li ñu amoon ci espèce yëpp bu ñu ko boolee ci xaalis mi ngi tolloon ci trente six millions sept cent soixante seize mille quatre cent soixante neuf trente six millions sept cent soixante seize mille soixante seize mille quatre cent soixante neuf loolu mooy li nga xam ne moom lañu amoon ci bis boobu ñu baaxoo def ci at mu nekk ñu di ko tuddee social ramadan ginnaaw bu loolu duggee nag il faut ñu wane tamit fan la génnaate li nga xam ne moom lañ jot a génnewaat ci bis bi mi ngi doon vingt six vingt six million neuf cent quatre vingt et un mille cent yooyu boo ko booleeg cinq million quatre cent dix sept mille mi ngi lay jox trente deux millions trois cent quatre vingt dix neuf mille. 32 millions 399 mille mooy li nga xam ne moom lañ jot a def ci bis boobu ñu tuddee social Ramadan kon day mel ne liñ limoon 36 millions 776 469 yooyu boo ci génnee 32 millions 399 mille day mel ne dana am 3 millions et quelques yu mu des 3 millions et quelques yooyu nag dañ ko delloowaatoon ci compte commission sociale ngir ñu wan cee wëyal ñi nga xam ne ni ñu ngi leen di faj ci at jamono ju nekk ci biir Korité googu tamit liñ ci doon séddale mooy ceeb lañ ci doon séddale. ak siigër ak 2000 francs yoo xam ne mooy transporté liñ la jox ak séddale woon nañ ci tamit ay fauteuil roulant dana ñëw ci kanam séddale woon nañ ci ay yére yoo xam ne nii tamit lim ba lim bu takk la waaye séddale nañ ci woon tamit ay tendrement biñ jugee ci loolu korite gi moo ci topp korite gi tamit dañoo defaat beneen recensement boo xam ne nii dañoo dem ci quartier yi gën a sori waaye boole ko waa ñu nekk ci biir dëkk bi liñ ci jotoon a jël ci ay mu ngi toll ci juróomi téeméeri nit lañ jotoon jël bu dee ci social ramadan bi ñu ngi ci jotoon a jël ëpp na 1465 personnes la maanaam junni nit ak ñeenti téeméeri lu topp bu dee ci korite gi nag jëloon nañ ci lu toll ak juróomi téeméeri nit yoo xam ne nii 285 personnes yëpp ñu ngi ko jëlee woon ci sancaan yi li ci des lañ jëlee ci biir dëkk bi muy 137 personnes yu njëkk a jël ak 58 yoo xam ne nii ginnaaw bu yëf yi tàmbalee la ay xéewal ñëwaat ñu yokkaat leen ci. loolu lépp lañ ci def ci xaalis ñu di ko tudde social Korité mi ngi doon dix millions sept cent soixante mille dix millions sept cent soixante mille buñ jugee ci loolu bis bi nga xam ne ni moom lañu daan wax social tabaski te mu doon sunna soo xam ne ni sayduna ibrahima alayhi salaam ci moom la bawoo wa man yarxabu an millati ibrahima ila man safiha nafsa bokk na ca sunna ya yanuy sopp ca bis ba nag mooy sol yére yu wees ba taxoon na at yi weesu yëpp buy dënmal si ñi nga xamee ne am nañu mënal seen bopp waaye amuñu na nañu mënalul seen bopp dañ daan organiser ab collecte boo xam ne ay yére lay doon yoo xam ne ci biir réew mi ak ci régions yi ak ci bitim réew lay tukkee bu ñëwee nag ñu séddale ko mu doon yére yu yees yoo xam ne yu am qualité la bu ñëwee ñu séddale ko ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw li nga xam ne moom lañ joto a am ci ay yére ren jii ci bisu tabaski bi mu ngi doon treize mille cent trente neuf mille cent treize mille vêtements cent trente neuf maanaam fukki junni ak ñeent ak ñeent junni ak téeméer ak fanweer juróom-ñeent ci ay yére ci biir yére yooyu nag am na ci trent trent trois cent dix sept foulard mooy yi ni muuro muuro amoon tamit tamit dix neuf sac à main muy sac yi nga xam jigéen ñi danañ ko yor amoon nañ tamit juróom-ñetti mbaxana amoon nañ tamit ci yére jigéen yére jigéen yi amoon nañ ci douze mille deux cent quarante six douze mille deux cent quarante six fukki junne ak ñaar ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn yére jigéen ci yére góor yi nga xam ne mooy góor ñu mag ñi amoon nañ ci lu tolloog trois cent quatre vingt deux ñetti téeméer ak juróom ñaar ci yére xale yu xale yu xale yu ndaw yi moo xam góor la moo xam jigéen la amoon nañ ci cinq cent onze juróomi téeméer yére ak fukk ak benn ci ay dàll amoon nañ ci cent quatre vingt douze dàll. amoon na tamit ay yére yoo xam ne dañ ay tiisaloo yoo xam ne ñëwaguñ ko woon ñu séddale woon ko association téer yi loolu tolloon na ci cinq yére ñi ngi santaale bu baax mbooleem ñi nga xam ne jàppoon nañ ci rawatina association bi nga xam ne moo nekk ci fiir ci biir Touba ak ci Mbàkke ak mbooleem ñi nga xam ne dugaloon nañu seen loxo amoon na tamit ay yére yoo xam ne nii yu bees la yuñ jëndoon loo xam ne kenn ñëwu ko woon yu ëpp ñetti téeméeri yére ñu séddale woon ko ci askan wi amoon na tamit ay takkaay yuñ amoon amoon na ay dara muy ñu koy wax darab yuñ amoon amoon na ay marmet amoon nañ ay eau de javel amoon na tamit ñeenti yoo xam ne nii amoon nañ ko waaye yooyu yëpp delloowaat nañ ko ci askan wi du ñàkk ngeen gis ko ci yenn ci vidéo yi ku wax tabaski tamit wax am xar moo tax bi muy ñëw tamit ren te tollook mbas mi dañoo waxoon ne bu ginnaaw mënuñoo jënd ay xar di ko dajale nañ fexe ba wut ay enveloppe yoo xam ne nii ku ci nekk rek danañ fexe ba jox la loo xam ne nii bu matatum xar tamit dana ci sori enveloppe yo nag mi ngi tàmbalee woon ci cinquante mille am na ñu ko ëpp loolu nag jotoon nañ cee dimbali lu tolloog 287 personnes ñaari téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom-ñaar lañ ca jot a def ci xaalis mi ngi doon 14 millions 780 mille 14 millions 780 mille kon loolu mooy liñ defoon ci social tabaski bi. am na tamit ay logement yoo xam ne nii jotoon nañ ko def ren euh, li ko indi woon nag mooy bokkutoon ci programme bi nga xam ne social nasoon na ko ci 2020 bi. waaye recensement bi nga xam ne moom lañ doon def ci korité gi ci lañ dem ci benn quartier boo xam ne ña fa dëkk rawatina ay soxna seen dëkk waaye yoon na waar lool te mënuñu leen woon a bàyyi noonu moo taxoon ñu defoon ci ab jaayante boo xam ne nii bokk taalibe yu nekk Italie ñoo njëkk a dugal seen loxo. soxna su njëkk si nag lañ njëkk a defar ab batiment ab tabaxam ñu defal ko néeg defal ko toilette defal ko mbaar xëccal ko ndox la ca jotoon dem ci xaalis mu ngi doon huit cent quatre vingt cent cinquante 891 mille 350 waaye booba nag maçon yi nga xam ne ñooñu ko doon liggéeyal lañ leen doon fay moo tax mu àgg foofu li tax nag mu lim bi séerul ba ëpp mooy li ci ëpp tamit daa am ñu ko jaayante ndax euh, bu doon seet am néeg rek boo ko bëggoon defar ci normal dana ëpp loolu ñaareelu néeg bi nga xam ne moom lañ fa defaraatoon mu ngi doonoon 703 900 703 900 lañ ci jot a def ci néeg boo xam ne nii carrelé nañ ko defal ci buntu ay fer def ca fenêtre def ca toilette xëcc fam ndox waaye loolu tamit ñu ngi ciy profité waale di sant daayira bi nga xam ne moom la ñuy wax Matlabul Fawzayni te ñuy ay ouvrier yoo xam ne ni ay menuisier nga ay ay eh, ferrailleur ña nga ca ay maçon ña nga ca ñoom jamono ju juñ amee ab liggéey rek ñoom ñoo ñëw jàppale ñu nga xam ne duñ leen fay dara dañ koy def ngir jëmmi sëriñ bi di sant tamit ay maçon yoo xam ne nii ku ñuy wax si liggéey moo leen jiite ñoom tamit ngi def ci taxawaay bu am solo boo xam ne nii ñoom tamit daawuñu sàkku ñu fay leen dërëm def nañ fa tamit branchement ndox boo xam ne nii jëlee nañ ko ci cent cinquante mètres xëcc ko def fa robinet mbedd ak yeneen robinet yoo xam ne ci kër yi lañ ko dugal yi nga xam ne aajo woon nañ ko loolu tamit ñu ngi ciy profité waale di sant daayira plombier ci njiital ku ñuy wax sëñ Abdou Diagne ñenn ñi di ko wax Baye Diagne ñoom tamit dañu doon ñëw di liggéey te kenn daw leen fay dara lu fayu sëriñ bi rek lañ ci doon séntu ñu ngi sant tamit ku ñuy wax sëriñ Cheikh Fall moom ab pentrikat la du mag waaye da doon def bépp tabax boo xam ne pare nañ ko rek mu ñëw jaayante ko pentri ko kon ñu ngi ko ci sant bu baax di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo ci tàbbu leen seen loxo rawatina bokk taali bi nga xam ne moo jaayante woon mboolem kara yi nga xam moom lañ ci doon def loolu nag fukki kër lañ fa jëloon ñaari kër yi moo pare mu des nag juróom kër yoo xam ne ña nga ca am xam naa ci jamono jii di ñëw da ngeen gis ne dana àgg am na ci ci kilifa yi koo xam ne sax sasoon a génn kër goo xam ne moom rek moo koy defar li ci des nag ci jaayante bi la dugaat lañ ca jot def muy ñaari kër ya pare ak kër yi nga xam ne ñoo nga ca mu ngi toll ci 3 millions deux cent quatre vingt six mille huit cent cinquante trois millions deux cent quatre vingt six mille huit cent cinquante. buñ jógee ci loolu ñu ngi ñëw ci màggal gi màggal gi nga xam ne sëriñ bi moo waxoon ne képp koo xam ne mbégteem sa mbégte la bu ñëwatee na nga ca na nga ko ci santale yàlla te mu waxoon ne sunu borom nanga ma defal sama tukki bii mu kawe sama njort waaye na nga def sama ñibbisi gii mu doon yiw woo xam ne du jeex ba mukk nanga ma defal sama ñibbisi gi mu doon mbégte ci sama waa kër waaye na doon mbégte ci mboolem ku gëm waaye na doon mbégte ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ijaal masiri yi fawqa sanni yaa karim waccaxal rujoohi xayra ajrin laa yarim ijaal rujoohi li duyoor yi busra lil muminina bil bashiril busra moo taxoon tamit commission sociale wax ne dana ci jàpp bu baax a baax ba ñi nga xam ne ñoo ngi màggal ñëpp ñu yëg ne dugal nañ ci suñ loxo loolu nag ñu ngi ci sant comité directeur bu Touba ci kanam ak mboolem kuréel Touba ci kanam yi ndax def nañ ci ak jàppandal ko am solo moo tax ñu génne woon ab lim jëloon ci lu tolloog 37 personnes yoo xam ne nii fanweer ak ñeent yi ay toilettes lañ soxla woon ñett ñi wala ñaari yi ñu ngi soxla woon ay néeg ak toilette loolu nag lañ ci jot a def mi ngi doon 14 millions 580 mille 14 million 580 mille toilettes yi nag li ci ëpp benn bu nekk ñu ngi ko doon defaree. ci quatre cent mille francs loolu nag ku ko dégg dana xaw a doy waar ndax benn toilette rek boo ko bëggoon a am ci prix normal da nga dépassé lu ëpp cinq cent mille wala minimum six cent mille waaye nag dañ cee dugal ab jaayante ndax maçon yi ko doon liggéey eh, dañoo wax rek nañ leen jox li munta ñàkk li ci des ñoom ñu jaayante ko kon ñoom tamit ñu ngi leen di beral ak cant bu baax a baax ci biir màggal gi tamit jëloon nañ ci ay nit comme niñ ko baaxoo def jamono ji nekk ñu jël ay nit leen faj waaye ci biir màggal gi dañ ko yokkoon jëloon nañ ci lu tolloog 63 personnes juróom benn fukki nag ñett lañ ci jot a def cib xaalis mi ngi doon million 4 millions 735 mille cent millions 735 mille maanaam ñi nga xam ne ñoo ñoom lañ dimbali ci màggal gi ci wàllu luy tax seen kër ñu mën faa màggal mu ngi doon 63 personnes ñu ngi ci def 4 millions 735 mille 4 4 millions 735 mille 4 millions 735 mille jëloon nañ tamit ñoo xam ne dañu leen faj ci biir màggal gi comme ni ñu ko daan defee ci weer yëpp waaye màggal gi dañoo yokkoon lim bi jëloon nañ lu tolloog 53 personnes juróom ña fukki nit juróom fukki nit ak ñett lañ ci jot a def ci xaalis mi ngi doon 5 millions million mille 5 millions 392 mille. am na ñaari bërëb yoo xam ne nii ñi nga xam ne seen caabi féete nañ ne seen ginnaaw moom lañ ca def ndax màggal gi dégg nañ ci wax si Abdoul Ahad mu wax ne. yowmal xiyaam amuti bis waaye jamono jan daan def màggal bu ñëwee ñëpp danañ yëg ne bis bii la bisu màggal gi moo waraloon ñu ne nañ gën a nemmeeku ñi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb yooyu nga xam ne ci ay féetal leen ginnaaw muy prison bu Jurbel ak prison bu Mbàkke lañ fa jot def ci xaalis buñ ko boolee ci def nañ fa yónnee nañ fa ay nag yoo xam ne nii bis bi danañ ko mën a màggal ay basan ay eau de sewel ay madaar ceeb ak dépasse boo xam ne dana leen mën a yor ñetti fan loolu buñ ko boolee mu ngi doon sept cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-un mille am na ay kuréel yoo xam ne tamit dañ leen doon jàppale kuréel yi genn gi ngi yëngu ci wàllu xam ak jongante ci mbirum njàngaleem sëriñ bi bi ci des mi ngi yëngu ci ci mboolem ñi nga xam ne danañ réer seen i bokk ci màggal gi rawatina ndaw ñi ñaari kuréel yooyu ñu ngi leen jàppale woon lu toll ci un million cinq cent quatre-vingt-dix mille un million cinq cent quatre-vingt-dix mille buñ ci loolu tamit que sëriñ Tuubaa nga xam ne moo nekk Daaru naan euh, sëriñ bi def na fa la fa war lépp def na fa tamit jàkka joo xam ne nii képp ku bëgg a julli da nga fa mën a jullee waaye dañoo bëggoon a jegeel ñi nga xam ne ñoo nekk foofa ngir ñu mën a julli ci seen i biir nekk ñi nga xam ne am nañ gàntul dem fa donte amoon na ay sijaada ak yooyu waaye ñu ne woon nañ ci feeñal suñu yéene moo tax dugaloon nañ fa suñu loxo ci ay sijaada ak carax yoo xam ne mënee sa koo waaje ak bitéel yoo xam ne da nga ko mën a raxasoo ak yu demee noonu loolu ñu ngi ci defoon trois cent soixante mil trois cent soixante mille am na tamit ay dund yoo xam ne dañ ko séddale woon ci màggal gi ci weeru màggal gi ñi ñi ci jot a bénéficié wu mi ngi toll ci soixante cinq personnes loolu lañ ci jot a def ci xaalis mooy trois cent trois millions trois cent soixante quinze mille trois millions trois cent soixante quinze mille daara yi itam jamono ji nekk commission social mi ngi ciy jëm li man donte Touba Ca Kanam wutal na ko ab commission boo xam ne moom la ñuy wax commission scientifique et culturelle waaye téewul commission di ci tàbbal loxoom jamonoy màggal nag dañuy laaj waa commission boobu lan ngeen gën a yittewoo jamono ren jii nag ñu waxoon ne ay basang lañ gën a yittewoo basang yooyu nag jamono ji nekk Cheikh Mamadou Mountakha dana ci joxe téeméeri basang ren jii tamit yeesalaat nañ ko lañ ca joxe ci basang lépp buñ ko doon natt ci xaalis mu ngi toll ci cinq millions cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinq millions cent quatre-vingt-deux mille cinq cent la ca jota jëfandiku ci ay daara ëpp na juróom fukki daara daara yooyu nag dañ cee jiital daara yu mag yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci dëkk bi bokk na ci li nga xam ne moom lañ def ci màggal gi muy joxe nañ ci loo xam ne nature la lu mel ne ndox wala ceeb wala yu demee noonu séddale nañ ci lu tolloog cent cinquante euh, paquet ndox yu ndaw yi séddale nañ ci tamit lu tolloog trente six saaku ceeb vingt cinq kilos yi séddale nañ tamit cent quarante cinq litres diwlin séddale nañ ci vingt huit cartons savon séddale nañ ci ay basang yu ndaw yooyu basang yu mag lu tolloog ci fukk ak juróom séddale nañ ci tamit ay paan lu tolloog 86 séddale nañ ci ay basang yu ndaw yu ñuy jullee lu tolloog 124 séddale nañ ci tamit ay kilo suukar lu tolloog juróomi téeméeri kilo suukar 500 kilo suukar séddale nañ ci tamit ay eau de sevel lu tolloog 80 carton séddale nañ ci tamit saaku ceeb yu 50 kilos yu tolloog 16 saaku ceeb séddale nañ ci tamit meew lu tolloog juróom benn saaku 6 saaku séddale nañ tamit ay carton masque ndax xam ngeen ne jamono ji yitte woon nañ ko lu tollook ñaari carton masque kon séddale nañ ci lu ëpp 5000 masques séddale woon nañ tamit ay carton sel séddale woon nañ tamit ay carton madar carton sel yi mi ngi toll ci ñaar carton madar yi mi ngi toll ci mi ngi toll ci juróom-ñaar muy set kon bala ñoo ñëw ci li nga xam ne moom lañ def ci at mi yëpp ci wàllum taxawaayu ñi nga xam ne ñoo xaw ñoo wéradi ak ñi nga xam ne nii dañ doon bëgg ku leen jàppale ci wàllu dundin ak bis yi nga xam ne ah def nañ ko ak li nga xam ne moom lañ baaxoo def ci weer wu nekk mu jëm ci suñu bokk yi nga xam ne ñoo ñu nekkal ci tool bi nga xam ne moom la sëriñ bëggoon koo fi nekkal muy alxuraan wala ñoo ñëw ci tënk bi ñu fàttalee ne itam commission sociale mbooleem li xam ne moom lay def jugewul ci ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy laaj murid di par weer waaye mu ngi jugoon ci ab jaayante boo xam ne ginnaaw boo joxee sa ñaar téeméer ba noppi jaay seet la la yàlla mën loo ko di ko def di tàmbulee ci dërëm ba jëm ci ay milliards kon bu ñëwee ci li nga xam ne ni moom la commission sociale taxawu ci ñi wéradi ci at mi atum deux mille vingt ñu ngi toll ci deux cent soixante deux personnes deux cent soixante deux personnes mooy ñaari téeméeri nit ak juróom-benn fukk ak juróom-benn lu tax mu doon lim bii nag mooy li ma leen waxoon rek ci njër njëlbeen gi di tàmbalee ci juróom-benn weer yu njëkk yi mois de janvier bu mois de juillet wala sax mois de juin. jëluñu ci ku tawat ndax tawat ji nga xam ne moo dëkk ci moo nekk ci réew mi te ñu wax ne jaxasoo lay lay bokk na ci li nga xam ne moo koy sabab kon liñ jot a def ci ñi nga xam ne dañoo wéradi eh, ak ñi nga xam ne moom lañ jot a def ci ay jënd ci ay ordonnance ci pharmacie yi nga xam ne moom lañ dëkkalool mu ngi doon dix neuf million trois cent quatre vingt treize mille cinq cent dix neuf millions trois cent quatre vingt treize mille cinq cent fukki millions ak juróom-ñaar fukki junni ak juróom-benni junni ak juróom-ñaari téeméer li nga xam ne ñoom lañ jot a jàppale ci wàllu wàllu dund nga xam ne ñoom dañoo am jafe-jafe ci seen seeni kër loolu mu ngi toll ci 403 personnes ñeenti téeméeri nit ak ñett lañ ci jot a def ci xaalis moo doon 20 millions 639 mille 100 20 millions 639 mille 100. ñaar fukk millions yu toftal téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróom ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk li nga xam ne moom lañ baaxoo yóbbu ca jumaa ja ci weer wu nekk ci daaree kaamil ji ñu fàttalee ne itam lii du loo xam ne nii ña nekk ca daaree kaamil ñoo ko sàkku ci ñun waaye ñoom taxawaay yi nga xam ne moom war sëriñ bi ñoom maa ngi koy def ñoom itam la leen war ci seeni kër ña ngi koy def waaye nag ñun ñoo gisoon ne kuy liggéeyal sëriñ bi boo ci boo ko jaaree ci alxuraan man ngaa rafet njortu ci ne da nga am ngërëmul sëriñ bi ndax sëriñ bi moo waxoon ne kat alxuraan mooy ab toolam kitaab yi kitaab kitaab bustaani kitaabullah ñi nga xam ne ñoom ñooy bénéfice wu ci loolu weer wu nekk ñu ngi toll ci fanweeri nit ak juróom-ñaar 37 personnes lañ ci jot a def ci at mii yëpp mi ngi doon 6 millions 240 mille 900 6 millions 249 mille 900 juróom benn million yu toftal ñeent fukki junni ak juróom-ñetti ak téeméer ak juróom-ñett fukk loolu nag weer wu dee ak la fay dem léeg-léeg mu doon 565000 léeg-léeg mu doon 570000 léeg-léeg mu doon 585000 ñi nga xam ne ñoo jot a bénéficié wu ci social bi nga xam ne moom la ñuy tuddee social Ramadan ëpp na junni nit ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn prix de 1476 personnes liñ ci jot a def ci xaalis moo doon 32 millions 399 mille 32 millions 399 mille. fanweeri million ñaar ak juróom-benn fukki junni ak eh, ak juróom-ñaar fukki junni ak juróom-ñett ak téeméer ak juróom-ñett fukk. li nga xam ne moom lañ jot a def ci social bi nga xam ne moo tudd social Korité li ci gën a bénéficié wu ci ay nit ñu ngi toll ci juróomi téeméer nit 500 personnes liñ ci jot a def ci xaalis mooy 10 millions 760 million 10 millions 760 mille mooy fukki millions ak téeméeri junni ak juróom fukk ak ñaar. ñi nga xam ne ñoo jër jëriñu ci social tabaski yi ci wàllu xaalis nga xam ne enveloppe yi nga xam ne mu cinquante mille la woon mu ngi doon deux cent quatre-vingt-sept personnes ñaar téeméeri nit ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar lañ ci jotoo def ci xaalis mooy quatorze million sept cent quatre-vingt mille quatorze millions sept fukki million ak ñeenti million ak téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom-benn junni ñi nga xam ne ñoo jot a jariñu ci construction bi nga xam ne ñi ñoom dañuy defal ay dëkkuwaay ci quartier bee ñuy wax Tawfekh Bousso buñ boolee ñaar yi ak ñi nga xam ne nii ñoo ca des loolu lépp mu ngi toll ci dix kër lañ ci jot a def ci xaalis mooy trois millions deux cent quatre-vingt-six milles neuf cent quarante trois millions deux cent quatre-vingt-six mille neuf cent quarante social bi nga xam ne moom lañ doon def ci màggal gi di ko taxawoo ñi nga xam ne nii ñoo ko yayoo ña ca bën ña ci jot a bénéficié wu ci ay nit mi ngi toll ci ñaar téeméeri nit ak fukk ak juróom-ñeent deux cent dix-neuf personnes lañ ci jot def ci xaalis mooy million 37 millions 356 mille 119 37 7 millions 356 mille 119 fanweeri millions ak juróom-ñaar ak juróom-benn juróom-ñaar fukki junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak fukki 15 ak juróom-ñeent kon lii buñ xoolee li nga xam ne moom ñoo jot a jariñi ci ay nit ci at mi ci commission sociale ci wàllu koppar moo xam ci faj la aju moo xam ci wàll dund la aju boo ci génnee ñi nga xam ne wax ay yére lañ leen jox kon li jot a bénéficié wu ci commission sociale nga xam ne commission sociale jot na leen a jëflanteeg ñoom ëpp na ñetti junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent prix de trois cent quatre vingt personnes boo ko boolee nag ak ñaar téeméeri jaboot ñaari junni njaboot ak ñaar téeméer ak juróom fukk yi nga xam ne ñoom lañu séddale woon yëre yi day mel ne commission sociale ñi mu jot a taxawu ci atum deux mille vingt ci ay nit mi ngi toll ci cinq mille cent cent trent cinq 5334 5334 jot naa taxawu juróomi junni nit ak ñetti téeméeri nit ak fanweeri nit ak ñeent li nga xam ne moom la commission sociale jot a def ci at mi yëpp ci wàllum xaalis mi ngi doon cent millions 855 mille 559 144 millions 855 mille 559 téeméeri million ak ñeent fukk ak ñeent fukki million ak ñeenti million ak téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ak benn junni ak téeméer ak fukki fifteen ak juróom-ñeent mooy li nga xam ne commission sociale liggéey na ko ci mille 2020 loolu nag moo jëm ci wàllu xaalis ak yu demee noonu li nga xam ne moom la joto séddale ci wàllum nature lu mel ne ceeb ak ay suukar ak yooyu séddale nañ ci saaku ceeb yi cinquante kilos yi lu tollook neuf cent quatre-vingt-dix-neuf saaku ceeb junni saaku ceeb yu manqué benn yu cinquante kilos jot nañoo séddale tamit saako ceeb 25 kilos yu du tolloog 1256 jot nañoo séddale 369 kilos café jot nañoo séddale 11 cartons tendarma jot nañoo séddale fukki saako dugub jot nañoo séddale cent 7340 kilos suukar juróom-ñaari junni kilo suukar ak ñetti téeméer ak ñeent fukk jot nañoo séddale 6 saako yu meew jot nañoo séddale 99 cartons saabu jot nañoo séddale 396 cartons madar jot nañoo séddale 617 cartons eau de Javel jot nañoo séddale 515 bassin yu mag jot nañoo séddale 124 bassin yu ndaw jot nañoo séddale 86 pannes jot nañoo séddale 7 cartons masque mu toll ci 5000 masques jot nañoo séddale 42 flacons alcool gel jot nañoo séddale lu toll ci juróom fukki 16 fauteuils roulants ak juróom benn yi nga xam ne moom lañ doon jox. suñu bokk yi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci wàllu tànk ñu koy wax handicapé 56 fauteuil roulant jot nañoo séddale tamit 39 beek yi mooy beek yi nga xam ne moom la doxe ñi nga xam ne ni seen tànk am na jafe-jafe jot nañoo séddale tamit 25 kaan maanaam yat yooyu nga xam ne mag ñi moom la yore ñenn ñi di ko yor ngir dundal sunna ñenn ñi di ko yor ngir jafe-jafe tànk jot nañoo séddale tamit lu ëpp fukki junni yëre ak ñeenti yëre ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent prix de 13 139 000 vêtements pièces de vêtements jot nañoo séddale tamit cent cinquante paquet ndox jot nañoo seddale mille cinq cent quarante neuf litres diw junniy litres diw ak juróom fukk ak euh, euh, juróomi litre téeméer junniy litres diw ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent moom lañ séddale ci année deux mille vingt bi léegi nag lii buñ xoolee buñ xoolee li nga xam ne moom lañ moom lañ fekk ci liggéey bi muy deux mille dix huit bi nga kii at mi nga xam ne nii ki ñu wuutu moom la fi mujj def moom ba muy tàmbali mi ngi tàmbale woon ci sero ndax ba muy tàmbali fekku fi dara waaye ci ak njàmbaar ak góorgóorlam fexe na ba lam daan def lu mu am ci at mi bu déwénee da koy am ñaaram moo tax 2018 lim mujj lim am ci at mi yëpp lim jot a liggéey ci at mi mi ngi doon 13 millions 392 mille 13 millions 392 mille ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kàddu gi nag ñu àndaat ak moom liggéey bi mu ciy def loolu bu rafet ànd ko waa commission sociale gépp bi nga xamee ne jënkani nañu mbir mi 2019 liñ jot a def ci 2019 bi yëpp mu ngi toll ci 35 millions fanweeri millions ak juróom lañ liggéey ci 2019 bi yëpp loolu nag boo seetee ak liñ liggéey ci eh, année 2020 bi day mel ne am na ak soree gu gu yaatoo yaatu ndax liñ liggéey ci année 2020 bi mooy 144 millions 850 cinq cinq mille 559 loolu nag li nga ciy gisee mooy li ñuy wax ne mbooloo rek mooy doole. kon liggéey bu du liggéeyub kenn waaye liggéeyub équipe la kon waa commission sociale yi gépp ñu ngi leen di sant bu baax a baax kon bu ñëwee ci cas yi nga xam ne moo fi nekk jamono jii ñi nga xam ne dañoo wéradi di ko sàkku ci commission sociale Touba ci kanam ñu ngi toll ci trois cent quatre ñetti téeméeri nit ak juróom fukk ñi nga xam ne dañuy sàkku ab dund ñu ngi toll ci cinquante trois personnes juróom fukki juróom fukki nit ak ñett ñi nga xam ne dañuy sàkku bërëbu suturlukaay ay toilettes ñu ngi toll ci ñeent fukk juróom quarante cinq personnes ñi nga xam ne ay néeg la ñuy sàkku wala ab kër dañuy sàkku ñu ngi toll ci cent deux personnes téeméeri nit ak benn ak ñaar ñi nga xam ne nii li ñuy sàkku dafa wuute ñenn ñi ñi ngi sàkku ab fonds bu ñu defar ñenn ñi ngi sàkku ab xadd ak yeneen ñu ngi toll ci trente sept personnes fanweeri nit ak juróom-ñaar compte commission sociale jamono ji nga xam ne maa ngi wax ak yéen la ca nekk matatut matatut cinquante mille francs ndax li ci nekkoon lépp mi ngi doonoon six cent cinquante quatre mille ñu toll ñu dolliwaatoon ca cinquante mille waaye nag dañ caa jëlewaat cinq cent quatre-vingt-cinq yi nga xam ne nii moo baaxoo dem ci daare kaamil kon la fa des ci compte social mëtatut cinquante mille ci koo xam ne dépassé nga plus de cent quarante-quatre millions et poussière kon loolu day wane ne kon ñun ay lantinoor lañ rek lépp lu fi waay jaarale mu jàll ci ñi nga xam ne ñoo ko yayoo jamono ji nga xam ne maa ngi wax li nekk ci Orange Money bu commission sociale te mooy 77 914 26 68 mu ngi doon deux cent vingt-huit mille cent deux cent vingt-huit mille cent li nga xam ne moo fa nekk ci compte Wave bi mi ngi doon cent douze mille neuf cent quatre quinze cent douze mille neuf cent quatre quinze kon loolu moo nekk ci compte social ci Orange Money bi ak Wave bi ak compte banque bi kon ñu ngi ñaanaat suñu bokk yi ñu gën a baral seeni jéego ndax commission sociale moom ñi ciy jaayante xëy na lim bi xaw naa néew tuuti loolu bu ñëwee ci jafe-jafe yi nga xam ne ah commission bi am na ko dana ci ñëw bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne nii commission bi da koo am te képp kuy seetaan vidéo bi te nga man cee jàpp nga jàpp ci ndax lépp ab jaayante la mooy dañoo amul oto boo xam ne moom la ñuy déplacé di seeti malade yi ak ñi nga xam ne ñoo am ay jafe-jafe mooy li ñuy wax la manque de voiture de liaison bokk na ci li ñu li ñu xaw a jafe tamit mooy manque de fonds mooy koppar yi ni mu war a bëree bëreewul noonu ndax commission yi ci Touba Kanam yu ci bëri am nañ budget waaye commission sociale moom ci jaayante la aju kon ñu ngi sàkku ci bokki taalibe yi ñu gën a yokk seen loxo ci wàllu googu bokk na ci jafe-jafe yéen am mooy manque de partenaire au niveau de structures yi jàppale gi nga xam ne ni des na ci bërëbu fajukaay yi loolu nag du yëpp waaye ñu ngi ciy sant lu mel ne Matlaboul Fawzayni ak euh, hôpital Ndaamaatu ak jéemul ndax seen service social bi léeg-léeg ñu jàppale ci cas yi nga xam ne dañ koy am bokk na ci jafe-jafe yéen am tamit mooy magasin boo xam ne dañ ci mën a denc bagage yi nga xam ne social dana ko am bokk na ci jafe-jafe yéen am tamit mooy manque de communication bi maanaam yaatal gi dafa xaw a des loolu nag ñu ngi ci soññi ñëpp waaye rawatina communication bi nga xam ne commission communication bi nekk ci biir Touba ci bokk na ci li jafe-jafe bi am tamit cas yi dajaloo gën fii dajaloo te loolu lépp li ko waral mooy manque ay koppar loolu tamit ñu ngi ci bokk na ci am bokk na ci jafe am tamit mooy ñi nga xam ne ñoo war a def visite du terrain nga xam ne ñoo war a wàcc ci ci terrain bi dem ci ñi nga xam ne ñoo ajowoo léeg-léeg tamit dañ ci am jafe-jafe ci lim boo xam ne nii danañu mën a ànd ak ñun ndax ñu koy def ñëpp kenn fayu leen waaye dañ koy jaayante ngir jëm sëriñ bi loolu tamit dana ci am kon bokk na ci jafe-jafe yi bokk na ci jafe yi tamit mooy ñi nga xam ne ñooy participer ci social bi dañoo par rapport ak ñi nga xam ne ñooy joxe 1000 francs par boo doon xool ñiy joxe 1000 francs par bu ñu dee téeméer rek ñiy joxe social bi juróomi nit lañ cay doon kon nag tamit ñoo ngi gën a ñaaxaat suñu bokk taalib yi nga xam ne sañ leen a sañ leen a ñaax ñu mën cee jàpp bu baax a baax bokk na ci li nga xam ni moom la ñuy dénkaane di ko ñaan bu fekkee ne mën nañ koy jàppale muy ñett yi wala ñeent yi mooy ku ñu mën a jàppale ci oto boo xam ne danañ ci mën a déplacé wu di seeti ñi nga xam ne ñoo am jafe ak magasin boo xam ne danañ ci mën a denc jumtukaay yi ak jàppale ñu tamit ba communication bi ñu gën koo booster ci réseaux sociaux yi ak ci télé yi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bi ak jàppale ñu ba nga xam ne nii fonds yi nga xam ne dañ koy am dana gën a mën a yokk kon loolu mooy li nga xam ne moo aju ci commission bi li ci des rek mooy di santaat mboolem bokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ciy dugal seen loxo ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew rawatina bokk taalibe nga xam ne ñoo nekk diaspora yi bàyyiwuñu kenn ñu sant ñëpp di leen jaajëfal di jaajëfal tamit mboolem commission sociale mboolem ñi ñu ñu ko àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant mboolem kilifa Touba ci kanam yi ñi nga xam ne noonu laa tàmbalee woon bi may lim di sant comité directeur bi ak bureau ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp ñu jege ak ñu sori ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp te dëkk ci dëkk bi moo xam ne moo xam ñi di tuddee ay commerçant moo xam ñu mën a doon rek ñu ngi leen di sant bu baax te ñaan sëriñ bi fayal leen boppam di sant itam lenn ci partenaires yi nga xam ne danañu jàppale ci bis yi faral di am rawatina ci 2020 bi kon ñu ngi sant bokki taalibe bi yëpp te di leen ñaaxaat ñi nga xam ne sañ nañ leen ñaax ñu gën a jàpp ci commission bii nga xam ne nii mooy jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi te bokk na ci bërëb yi nga xam ne nii jortu naa ne mën nañ cee dàkkee ngërëmul yàlla ndax li suñu borom tudd julli nga xam ne julli mooy jaamu yàlla gi gën a màgg banaana fu mu ko tuddee rek euh, joxe sa alal ci yoonu yàlla la koy def kon nag rawante baax na waaye yaakaar naa rawante bii ku ci rawante mën ngaa am ngërëmul yàlla mën ngaa am ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën am ngërëmul Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom mi ñuy liggéeyee te loolu rek moo mat a dàkk ñi ngi ñi ngi sant waxaat tamit ne euh, tubaa ci kanam ni mu baaxoo def mooy at mu nekk dañuy natt li nga xam ne jot nañ koo def ma ko bu ko defee mboolem ñi xam ne ñoo jiite woon commission yi ñoom tamit jébbalewaat seen tànk ñu seet ña leen doyaat ñu dénkal leen ko kon man mi nga xam ne maa nekk ci kàddu gi jiite woon commission bi nga xam ne moo mooy commission sociale ndombal tànk li ñu ma dénkoon tegaat naa ko ji di ñaan mbooloo mi seetaat nga xam ne doy na leen ñu jox ko liggéey bi mu wëyal ndax lii responsabilité la waaye du privilège kon ñoo ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne ñu gën a jàppaat ci rawante bii nga xam ne mooy dëgg-dëgg rawante bi nga xam ne ko ca raw sa àdduna ak sa àllaaxira mën naa baax ulaayka yusaarifuuna fil xayraat wa hum laa saabixuun asalaamaaleykum wa rahmatullah